bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko Silla moo gemboo gem bu gos bi féet or am lu son wala boog daf leen a woon ginnaaw léegi moom Karbala Bébé Fass moom ngeen jàkkaar lool ñaari mbër yaa ngi jàppante Bébé Fass ak Karbala ñaari mbër yaa ngi jàppante daw na songole ko léegi moom Bébé mu bañ moo ngemboo bu xonq bi Karbala moo ngemboo bu Lagos bi ndeysaan ñu ngi jàppante ñoom ñaar mu ngi koy lamm ci wet gi Bébé Fass Karbala moo ngemboo ngem xonq bi Karbala moo leen won ginnaaw ngemboo ngem bu bi ndeysaan ñoom ñaari mbër yaa ngi jàppante ba magul mu ngi ko bëree woon Iba Mar combat bu metti moo ci amoon ndam daw na bëgg ko roof tànk bëgg ko songole moom Garba la Bébé Fass bañ am na lu muy waajal de mu ngi jokkaat ci suuf moom Bébé Fass Garba la ngi jéem a jàpp ndeysaan ñaari mbër yaa ngi jàppante Bébé Fass moo leen wan ginnaaw ngemboo ngem bu ruus bi Garba la moom ngeen jàkkaar lool ngemboo ngem bu lëgës bu am lu solli ndeysaan roof na ko tànk bu ko caxabal bu bañ Ada Fass a ngi koy xëjaat ci diggi géew bi ñu ci wetu saako yi ñoom ñaar Ada Fass ak Karbala yaa ngi jàppante Ada moo leen féete ndeyjoor ngemboo ngem bu xonq bi Karbala moo leen féete càmmoñ ngemboo ngem logos bu am lu son li ndeysaan caxabal lay waajal moom Karbala waaye Bébé Fass mayu Bébé Fass Karbala songale na ko yóbbu na ko dóor na ko suuf Lamine Bébé Fass tas na réew mi Lamine Bébé Fass daan daan na ko jël bu rëy. laa ilaaha illallaah Bébé Fass. day day naxaate. day naxante Bébé Fass poids bi nax ak yaram bi ni mu mel tey dóor ko ci suuf Bébé Fass daan na Karbala. Gracias, règlement bi li mu nangu ak limu ba consulté na benn siis ñaareelu siis ñetteelu siis Bour Sine 2 pare nga Boy Walo pare nga arbitre bi soufflé na ndeysaan sixième combat de la soirée 18 ci ngoon dem na ba teg fanweeri minutes ak euh, ñett wala boog 18 heures 33 minutes juróom benn waxtu ci ngoon dem na ba teg fanweeri minutes ak ñett ndeysaan ñu ngi fii ci arène nationale journée Sam Mbaye production moom la ñu doon di toppal tey di ab gaaw di ñetti fan di juróom ñaareelu weer ci weeru tubaab atum ñaari junni ñaar fukk ak fii ci arène nationale Cheikh Diop moom la àndal ci cadrage bi ñaari mbër yaa ngi léwtoo booy waalo mu ngi demee wet buut siin lancé na ko croisé droite waaye dalul booy waalo ngi déplacé wu latéral gauche droite moo ngem boo bu xong bi wan leen ginnaaw moom booy waalo bu am lu weex buur siin numéro 2 moom ngeen jàkkaarlool moom itam ngem boo ngem weex waaye saafara yi dafa tax ba dafa dem ba xëll day ndeysaan muy tànkul ndijoor ak euh, tànku càmmoñ mooy wàllu tànku ndeyjoor la jiital mu ngi déplacé wu Bour Sine na ko crochet gu droit mooy wàllu ngi déplacé wu da koo bëgg a jàppale waaye Bour Sine mayu ko ko dinañu ko taxawal ñaari mbër yi Cheikh Diop moo nekk ci cadrage bi ndeysaan ñaari mbër yaa ngi léwtoo Bour Sine numéro 2 Boy Waalo Boy Waalo moo leen wan ginnaaw numéro 2 moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan takk ay jàjj ndeysaan takk ay lapataaki ci loxo bi waaye Lamine ñaari mbër yi mooy waalo dafa bëgg dem de waaye Bour Sine mayu ko ko Lamine. tolloo wuñ nag. tolloo wuñu. daw na jël ko est-ce que booy bi mas naa bëre. booy waalo mi est-ce que mas naa bëre booy naa bëre am yu bëri ndaanaan la ci làmb. ah xam naa ko war na fii ñu nekk nii. ah rëy eh, eh. xeex bi baaxul. eh xeex bi baaxul. eh xeex mbaa kenn du waaj. waa booy waalo. Bour Sine ah Bour Sine arbitre bu soufflé booy waalo gaynde la de. gaynde eh, la waaye gis mu daan ko def ndeysaan avertissement kenn ku ne am na benn booy waalo arbitre bi waat na ñu fi jaar national ndeysaan journée sans mbay sans production Lamine ñaari mbër yaa ngi doxe wedde Bour Sine numéro ak booy waalo booy waalo moo ngem bu am lu xonq li Bour Sine numéro bu xëll bi moo ngeen jàkkaar lool ndeysaan waalo Bosco Sow la jógee Bosco Sow Bosco Sow la jógee Bour Sine numéro 2 écurie Bawol la jógee. ndeysaan Lamine ñaari mbër yi xeex nañu léegi xeex bu méttee métti yi. bëgg naa ko ci. ndeysaan euh, méb na man bëgg cooki cooki. ndeysaan door na ko yéeg na ko croisé droite léegi mais booy waalo daw na jàpp ko. booy waalo daw na jàpp ko jàppante nañu daje nañu ñoom ñaar. booy waalo ak buur siin numéro 2 ñu ngi del si fi ñu nekkoon de ci saaku yi amin li ay tegtal la wala lu mu doon nii booy waalo bëre bi la gën a bëgg de daanaan la Lamine mbër mu jóge ci défaite la bu jóge ci victoire booy waalo ci victoire la jóge mën naa sax ci ay victoire la jógee combat bi mu jeexal top 5 la yóbbu adversaire bi bu sin numéro 2 ci defet la jóge fële ci stadium Iba Mar Diop dafa numéro 2 ak euh, Boy Waalo bu bës ko sow xam naa ne seen ngëm buy rëy na xaw ma lu ñu ciy def rek non mbëri lu ne lañ ciy def am na ñu ne guro ah. sax lañ ciy dugal ah am na ñu ne kilo guro la ñuy jël ngëm waale ko waaye lii boo ko xam ne neexul weddi de Boy Waalo ngi dóor Boy Waalo ngi dóor bu sin a ngi jéem a jàpp Lamine position yi changé na de Boy Waalo ak Bour Sine numéro 2 Bour Sine numéro ngi jokkaat ci suuf Boy Waalo ngi jéem a jàpp Bour Sine numéro 2 écrit Bawol Boy Waalo ba làmb bu yàggee da nga taxaw fu la neexut. walaay loolu am na Lamine. boo ba léegi. mayante wuñu dara. mais Bour Sine la mu jëkke woon dañoo gis dafa mel ni daf ko. Bour ni mooy bu bës ko sow. ah weex na de kii ko. soowam. wayal la sote ko wala lu mu doon nii. yàlla soobi la ko jël. laa ilaaha illallaah. Boussine booy waalo combat bi metti na. Lamine booy waalo ku naqaree bëreel la. vraiment jàmbaar. kon mu naqaree bëreel mooy booy waalo. booy waalo Boussine. mooy wàllu bës ko sow buur siin igri bawol si a joob xoolal mbër ma le la mu sore ko sow mbër ma le weex la tàll de la ilaha la ay li mba jàmm la si a joob kii mënu naa jox seew mu nga naan ko de soow mi bu la ko joxoon nga wayal ko de si a joob naan ko wala nga suukar boog wayal nañu ko ba pare Boy Waalo Bou Sine numéro 2 Boy Waalo moo leen wan ginnaaw Bou Sine numéro 2 moom ngeen jàkkaar lool ñaari yaa ngi jàppante ngi jokkaa ci suuf moom Boy Waalo Bou Sine woon doole lamb ji jeex waaw lamb ji jeex na dafa mel ni sawara si ci Bou Sine ndeysaan Bou na ko jëm ko wéele mu bañ ndeysaan condition kontak ku ko ëppale fii mu toll yaa moom combat bi Lamine ku ëppaloo contact ci combat bi ragal naa ne yaa moom combat bi fii mu toll bu fekkee atte wuñu leen waaw waaw leen di atte ah Lamine Boy Walo mi musiba la Boy Walo ngi noonu ci digg géew bi Bour Sine dem na Ardo daa mel ne Bour Sine mu ngi commencé yëg coono yaram bi Lamine. moo tax ma ne la combat bi bu ñu yéexee mi-temps moom mooy tulee ku condition lu bare bari yaa yaa moom bi. te lii ñuy gis dafa mel ni booy waalo moo gën a mën di contact ci combat bi jël na jël ko teeru na ko jaw na ñu Bour Sine numéro 2 Boy Waalo bu bës ko sow yëg na ay coono Bour Sine numéro 2 moo leen féete càmmoñ Boy Waalo moo gem lu am lu xonq li di ñoom ñaar ndeysaan Oussine numéro 2 Boy Waalo ñu ngi jàppante ñoom ñaar Oussine numéro 2 moo leen won ginnaaw Boy Waalo moom ngeen jàkkaar lool ñaari mbër yaa ngi jàppante di mandi welante <laughs> Lamine man immédiat laa nekk Lamine ITV e laa nekk Lamine cosaan a ngi noonu ndeysaan cosaan a ngi noonu xool xale yeeg lekkat yi waay wal xale yeeg leket yi a ah, ndeysaan ay cosaan cosaan a ngi noonu Lamine boo leen gisee xam ne Sénégal biir lañu ndeysaan ki ànd waay bari na ay jaaj de lool wax tuuti nag patron ba ngi noonu ak sama waa nga xamante ni si tey mooy sama taalibe waaye ba léegi joxeegul addiya Diouf fay ak réew ak fi nga xamante ni li nga xamante ni tey mooy drapeau madum sey borom taw féex boo ko xoolee féex boo ko déggee féex ma bëgg laa xamal nag ñi la xale yi nañ jàng bëri waaw surtout xale yi nañ jàng bëri surtout loolu Mbow surtout loolu waaye bu ñu jëloon référence ci moo mel nii wallaay ndeysaan waaye bu ñu jëloon référence niil du am kon nag lamb ja Boy Waalo ak Bou Sine numéro 2 ñu ngi jàppante. benn jabar la yor Cheikh Diop la benn jabar la yor lundi passé la doon génte xaw ma mardi dafa gën ab néeg dañu koo gën a néeg ah jot na ci moom de dafa gën néeg fii mu toll de Cheikh Diop <laughs> buuru benn jabar la non man moom presque presque. presque ficelé. presque ficelé. Lamine presque ficelé desatul lu bari. kii mooy bëre Xaarim Ndiaye. ba taxaw. moom Xaarim Ndiaye la seen ut nañu bëri ci combat boo ñàkk yi. ah bon waaye non Lamine loolu du combat waaye ah. dañu ma baal nag waaye loolu du commandé xamu ko ko tënk. jox do toogal ci pël. ni nga koy waxee ci séeréer. waaw Modou Anta moo doon mbër mi. même yow mbër nga wax. <laughs> diw numéro 2 nga tuddoon diw numéro 2. Lamine Modou Anta moo doon mbër mi Lamine waaye man du ma mbër. Babacar jot na ci bëre. ah bon lakkantaan la tuddoon. lakkantaan <laughs> mel mi. école de Doudou Bakassar. <laughs> foofu la naa daal ñaari mbapat. ah Lamine léegi ñëw de. Boy Sey bii. arbitre bi àtte na. Boy Sey. Hmm. bu Kër Massar. arbitré naa ko ñaari yoon ba pare. ah non Lamine kon mënoo génn biir looro non mënoo génn ci mbar gi Lamine. waaye arbitre yaa ngi ci seen biir de. day jeex mel day joxe verdict de. dañ koy jox victoire bi. ah waaw victoire de Bour Sine numéro 2. am na ndam ci ci coono nag. ah Bour Sine numéro 2 am na ci kaw Boy Waalo daan jël bu leer ñëpp gis na ñeen la teg seen bët dama bind sama recours dem jël sama victoire kat at bi am na bu leer ndeysaan Cheikh Diop ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi Cheikh Diop ndang rek fekk ndaa na ak Mbaye Khada te ndeyjoor nge moo ngem bu ñuul bi toj tale koy sengoor yu weex fekk ndaa naan moo bu ñuul moom itam jiital tànku camoñ Lamine Seck ndaanaan la ak Mbaye Khada waa Seck yoof la jóge Joof la jógee moom Seck Ndaanaan Mbaye Xada jàmm gën ndeysaan ñaari mbër yaa ngi léewtoo Lamine Seck Ndaanaan jiital tànku càmmoñ Mbaye Xada jiital tànku càmmoñ féete leen moom Mbaye Xada Seck Ndaanaan féete leen càmmoñ Lamine ñu ngi tey arène nationale journée Sambay production Lamine dama leen tey la ab gaaw di ñetteelu fan di juróom-ñaareelu weer ci weeru tubaab. atum ñaari junni ñaar fukk ak benn ñaari mbër yaa ngi lewtoo lamin mbay xadaa ndeysaan moom ngeen jàkkaarloo sekk ndaanaan moo leen uh, wan ginnaaw ndeysaan ñaari mbër yaa ngi na tekk lamin combat bu neex a ngi nii sekk ndaanaan mbay xadaa door na waaye yéen sekk ndaanaan mii ah sekk ndaanaan encaissé na ay daw jàppante mbay xadaa mbay xadaa fudd na sekk ndaanaan da koo bëgg a doole waaye jaayante doole faje ko fa dara de lamin góor jaarul da xeeb de walaay góor jaarul xeeb góor bala nga ko xeeb ñam ko ba pare wedi laa jël buur si nag booy waalo jàppante na ñoom ñaar mbay xadaa ak sekk ndaanaan sëkk na benn butu umbi moom mbay xadaa jógaat na sekk ndaanaan jàpp na daal di waaw waaw am na lu xew de ardo waaw waaw docteur bi am na liggéey na Lamine non tey liggéey na ardo mu ndaw liggéey na Lamine tey seetatatatat mbay xadaa li nga xamante ne mooy sekk ndaanaan arbitre bi soufflé na ginnaaw bu ñu bëree bëree bu metti ndeysaan ki nga xam ne mooy sekk ndaanaan présenté bay xanaa ci bi reporter yaa ngi lekk ay sarax de ay reporter yi moytu leen saraxu mbër yi ay reporter yi moytu leen yi reporter yi moytu leen saraxu baax na Lamine bay xanaa sekk ndaanaan arbitre bi soufflé war na waaye xadaa moo leen mu ngi jàkkaarloo Sekk Ndaanaan moo leen woon ginnaaw waaye moom ngeen jàkkaar lool Sekk Ndaanaan moo leen woon ginnaaw waaye xadaa Sekk Ndaanaan ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Sekk Ndaanaan a ngi def ay déplacement

Mbaye Khada moom ngeen jàkkaar lool Seck Ndaanaan moo leen wan ginnaaw mu ngi def déplacement moom Seck Ndaanaan baral na léwto bi baral na léwto bi moom Mbaye Khada wala boog Seck Ndaanaan di jàppante génne na ko saa bu duggee mu génne ko daw na yooru mbaa di nga ci génn Seck Ndaanaan daw na yooru mba di nga ci génn Seck Ndaanaan yéeg na ko plaqué mu bañ mu koy manipuler ci suuf ñu ngi raam kenn ku ne sëg nga sa bëtu am yëkkati benn bi position boo bu ñu taxaw ñoo ko bokk ñoom ñaar mbay xataa sekk ndaanaan mu ko yëg plaqué sekk ndaanaan bañ yaa ngi bëre dee sekk ndaanaan mbay xataa sekk ndaanaan mbay xataa ñu ngi jàppante ñoom ñaar mbay xataa moo leen won ginnaaw sekk ndaanaan moo leen moom ngeen jàkkaarloo nekk naa naan bay xadaa nekk bay xadaa di ñoom ñaar ba léegi dara amagul nekk naa naan kanam moom ngeen jàkkaar lool bay xadaa moo leen won ginnaaw ngem jiital benn kilisaar bu noir wala boog bu ñuul ñu 3 juillet atum 2019 wala boog atum 2021 ngeen baal ma ndeysaan tey la ab gaaw di ñetteelu fan di juróom-ñaareelu weer ci weeru tubaab atum ñaari junni ak ñaar fukk benn bay xada suk na benn bëtu om bi ndaanaan moom ngeen jàkkaar lool ndaanaan bay xada combat bi yàgg na arbitre bi soufflé waat na Baye Khada ngeen jàkkaar lool ndaanaan moo leen woon ginnaaw ngeen boo lu xonk li ndeysaan Seck ndaanaan moo leen woon ginnaaw Baye lool ñoom ñaar ñëpp tàggu càmmoñ la jiital Ada Seck ndaanaan am tàkk na de nañu ba lamb yu tàkk ñoom ñaar waaye njëkk yi gaaw na waaye yi ci topp ñoom yéex na arbitre àtte na avertissement Mbaye Khada avertissement Seck ndaanaan arbitre bi nee na ne am na deux avertissement wàcc nañu jëmi Félixson Seck ndaanaan Mbay Xada ndaanaan Mbay Xada léegi ñu ngi léewtoo ndaanaan jiital tànku càmmoñ Mbay Xada jiital tànku càmmoñ waaye Seck ndaanaan moo leen woon ginnaaw Mbay Xada moom ngeen jàkkaarloo ngi jàppante xeex nañu daw jàppante ñoom ñaar saan fii nag ragal naa ne bu ñuu génnul xëy na combat bi mën na jeex waaw waaw sekk ndaanaan bëtt na ko wala ba mbay xanda ko yàq ko yéeg na ko plaqué ko bañ na koy long tànk sekk koy forcé sekk ndaanaan li ba baax waaw waaw am na lu xew dañu xaar arbitre bi ñu xaar arbitre bi dañu xaar arbitre bi ba xam lan moo xew waaw waaw arbitre bi nee na sekk ndaanaan daan na mbay xada waaw arbitre bi nee na sekk ndaanaan daan na mbay xada arbitre nee na sekk ndaanaan daan na mbay xada arbitre nee na sekk ndaanaan daan na mbay xada mbay xada fekk naa naan daan na mbay xadda mbay xadda loxo bi am na problème maanaam wa waaw loolu lay niru de Lamine dafa mel ni dafa dam de mbay xadda loxo bi am na problème dafa xarañ booy loo dafa xarañ ndeysaan ñoom ñaar arbitre bi soufflé na ndeysaan dafa xarañ ginnaaw booy loo moom ngeen jàkkaar lool dafa xarañ moo leen wan ginnaaw ndeysaan ngemboo ngemb bu weex bi takk ay sengoor ci ndigili wala boog ci kaw ngem bi booy loo mu ngi takk ba xum mais nag mais booy loo waaw waaw du xaar waaye bëri na combat bu metti fële ci stade Iba Mar Diop combat bu yàgg sax digganteem ak junni moog junni combat bu yàgg te metti junni bu Cambérène ndeysaan mu ngi noonu Lamine dor na ko la ilaha illallah Lamine dafa xara yéeg na ko croisé gauche bu dal maa la ko wax waaye Boy Lo ngi na teg ji ko déglu am na maîtrise Boy Lo tànku càmmoñ la jiital dafa xarañ jiital tànku ndejoor ndeysaan ginnaaw seen sey moo ne fausse garde ak garde normal amul bàyyi ñu ne tànku ne a tànku càmmoñ ak Lamine soyu weex dafa xarañ ngemboo ngem bu weex takk ay sengoor ci kaw gemb bi takk benn uh, sengoor ci bopp bi Boy Lo dafa mel tey dafa ñëw pour déglu wallaay ndeysaan Boy Lo tey daf ko déglu ba xam lu Tapha Xarañ di indi dégg na ko Lamine fa mu ko yéegoon la ko yéegaat dafa yor góose bu doy waar moom dafa xarañ dafa xarañ Boy Lo Boy bu Caaroy sur Mer daan ah combat spécial bi gën a neex rëm ak deux ñoom ñaar ñëpp dañoo mën a bëree te ñoom ñaar ñëpp ci gara combat la ñu jóge Lamine ndeysaan rëm gara combat la jóge fële ca Bargny daan jël bu dawul ko la ci la ilaha illallah Lamine Lamine ñaari mbër yaa ngi lewtoo ndeysaan waaye Lamine combat spécial bi dina neex ni nga ko waxee bëri nañu gën a combat ñoom ñaar ñëpp rëm ci grand combat la jóge fële ca bari ñi ki nga xamante ne mooy ka eh, deux siga ci grand combat la jógee fii ci arène nationale diggante ma kaw gourne mu daan ko jël bu rëy ndaysaan mu ngi amoon la 11 euh, janvier. kan moo ko tëggoon. Mbaye Yékini moo ko tëggoon la 11 janvier 2020 ndaysaan Mbaye Yékini moo ko tëggoon ndaysaan waaye ñaari mbër ngi lewtoo ndaysaan euh, jokkaas na ko croisé droit waaye dalul parce que bi muy dóor ngëbul mel na ko lu koy mbéj ci ginnaaw loxo bi mais Boy Lo tey dafa déglu Lamine Boy Lo dafa déglu Tapha xarañ Tapha xarañ ndax xarañ na ndax xarañam dina ko woon Boy Lo mu ngi bëgg a yàgg te ay adversaire ay adversaire de taille la ñu war na mën a jeex Lamine combat yu jëkk yi seet nañu dafa gaaw waaye mujj yi day dafa yéex trop mujj dafa yéex. moom waaye bu di nga wax ba sonn. wallaay ndeysaan loolu am ci lamin ndeysaan booy loo ak dafa euh, xarañ ñoom ñaar ñu ngi lewtoo dafa xarañ moo ngem bu weex bi. jiital tànkul ndejoor Boy Lo moo jiital gàmm. parce que da ngay mar parce que ñeex saf yàpp. <laughs> <laughs> te duñu rey dara. duñu rey dara loolay problème liggéey boo xam demee noonu Lamine dafa xarañ Boy Lo dan Lamine ma ci jaaxal xale yi bu ñu signature nga ne ñii bu ñu ñëwee ay seconde la ñuy bëre. signature rek lañ mën. ñëwee di léewtoo jëmale bu kenn xamul kenn mësul gis lu mel nii. waaw waaw loo xam nga ne moom itam yu sonn yële yëpp moo ko fi indi waaw lamb wóolu teen na ku ñëw ca pind ba nga yem di ko tere yaa ngi kaw tribune ba kenn du wàcc dafa xarañ rek booy loo ñoo nekk ci diggi bi jib na suuf moom dafa xarañ ak loxo càmmoñam booy loo dër di direekul di ko topp des fois mu cokos ko góos ndeysaan booy loo dafa xarañ ah Cheikh Diop ndeysaan Cheikh Diop nee na asamaan si dafa xiin wax na dëgg de Lamine bàyyi wuñ ci xel waaye dafa xiin de Lamine ah waaw waaw xool sa xool sa ndeyjoor xool sa ndeyjoor Lamine xiin bu ñuul kuk ay waay ñii nañu bëri jóg fi bala ñuy tawtee <laughs> ah xob mu replier nga taxawaat ba xarañ loo ba xarañ loo ay bëri leen taw asamaan si dafa xiin ay waay xiin bëri na balaa muy taw sama xel dara bu sedd a ngi ñëw ci suuf loolu boo ko déggee dëkk ba dañu la naan ndox a ngi ñëw suuba ngi xeeñ mu ngi xeeñ baax Lamine est-ce que xam nga baax mais yow loolu nga dëgg naar bët sax xam naa ko naar bët <laughs> ak mbott yi xoox xooxe di jooy xam xamu ko yow mas ngaa lekk bët bët waaw mas ngaa lekk kay ah. waaw waaw kaña nag mën nga ko lekk bañ a lekk kaña kaña lekk naa ko jinax jinax lekk <laughs> jinax lekk naa ko Lamine mën ngaa lekk Boy Lo Daba Xarañ Boy Lo moo leen fete tej ndejoor Daba waaw Lamine ñi mu ko dugg na bi ko ñooñu samay patron ñu bàyyi man ma xam li ma nekk bi yu ndaw yi sax lekk naa ko bi yu sew yooyu jàll bi di jaay lekk naa ko Lamine ku loolu lay lekk ko jóg ak jaar ak suñel ak suñel. suñel man boo lekk. bañ a lekk. Lamine suñel boo ko ñàmm doon ko bàyyi xam nga ni. yaa nekk naa suñel. ndeysaan ñaari mbër yi yaa may wax loo Lamine noonu yaa koy wax loo nit ñi noonu yaa koy wax loo nit ñi wala si ñaan am ay ban ay ay Lamine yow muusoo muusoo yéen boo ko salee ci taal bi ilaha illallah suñel boo ko sanee ci taal bi diw moom suñel waaw waaw léegi jàmm la est-ce du damay bañ a publicité waaye kon moo xam mat la yooyu ñuy bañ a tudd la <laughs> dafa xarañ ak mooy loo

Faxañu day naa indi door na ko mu tàkk na yoon de combat bi war a jeex Lamine. bu ñu gënul saako yi mu jeex de. bu ñu gënul saako mu jeex de Lamine. ñu ngi jàppante ñoom ñaar. waaye jege nañu saako yi de dafa xarañ booy loo. lii de bu doon Cheikh Diop sax xanaa combat bi jeex na. bu doon Cheikh Diop sax combat bi jeex na. bu ma ji waa na waaw waaw lom waaw ah, am na fu la ba dee de moom Babacar séeréer danañ ak Aram Ndiaye Aram Ndiaye la tudd deuxième femme la très bien loolu ah ah, am na ñaar Bour Gueweul ban benn Dakar ak kii Babacar am ñaar bi loolu ñaaw na loo am ay sax ay lay wax bopp fit na ko jàppante nañu daw na sànni ko léegi moom boy loo waaye walaay loolu baax na ci ndeysaan suñu suñu maam xaar mbay ma jaagal li la way waykat bi fi mu gën baax na walaay amin amin yéeg na ko mu bañ Mourtaba Xarañ Boylo Tapha Gueye jàppante ñoom ñaar Boylo Tapha Xarañ ñu ngi jàppante ñoom ñaar yëg na sotti na ko Tapha Xarañ dal di teg benn loxo bi jógaat sang booy loo daf ko yéeg plaqué Tapha xarañ daal di samb loxo bi daal di am appui dëgër du daal di jógaat seen mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ñu teel ñu ngi fi ci arène nationale bi journée Sam Mbaye production Cheikh Diop moom laa dal tey ci cadrage bi tey di samedi 3 juillet atum 2021 wala boog wala la tey la ab gaaw di ñetti fan juróom ñaareelu weer ci weer tubaab atum ñaar junni ñaar yaa ngi jàppante dafa xarañ booy loo dafa xarañ booy ñoom ñaar Boy Lo ñu ngi bëri ci suuf Boy Lo Tapha xarañ ndeysaan Cheikh Diop ñaari mbër yaa ngi bi yàgg na waay tudd Boy Lo ñu ngi doxantu Paa Xarañ Boy Lo ñoom ñaar ba léegi yéen a fi tuddee amateur yi Boy Lo ak Xarañ ñoo fi guddeel amateur yi ñoom ñaar moo ngem moo ngem bu xonq bi Tapha Xarañ moo ngem moo ngem bu weex bi xarañ ndax wuyoo na turam ñu ngi ci diggi géew bi dafa xarañ moo leen féete à gauche booy booy euh, loo moo leen féete appel na ko gauche droite moom booy loo Baja de Pilier. Boy Lo ñoom ñaar xarañ ak boyloo. arbitre est-ce que du tàqali ñaar ñi. ah wala ñu jël de wax dëgg yàlla son nañu de vraiment. jeex na. dañu di disqualifié. bu dee am nga arrière foo jëm am nga am nga trois avertissement rëm moom lañ jàkkaar lool deux Siga moo ñu wan ginnaaw noonu ñaari mbër yaa ngi lewtoo tey samedi 3 juillet 2021 door na tooñ na ko moom deux waaye ndongolo daal moom jar naa yërëm ndeysaan metti metti na torop metti na torop metti na na moom vraiment metti moom ndongolo c'est compliqué c'est compliqué Lamine. ndeysaan deux Giga ak Rëm waa Rëm ni mu taxawee yéemu law. day song yool muy song la. yool muy song la waaw waaw daw na jël ko parce que dafa gis mu taxaw tem. waaw deux ak Rëm ñoom ñaa ñëpp ci garaag. ma ngi koy jaay doole ma ngi koy jaay doole ma ngi daan na ko waaw waaw. doole doxul jàmm. moo ko ëpp doole. yaa illallah Rëm dafa daw jël ko bal ko ci kaw. weñ ko góos. jaay doole baaxul. weñ ko dal di assoné. daan na ko doole daan ko. daan ko jël bo. deux siga daanu nga muñal. rëm daan na deux siga. laa ilaaha illallaah. deux siga. waaru woo. deux siga waaru naa. combat bi du yàgg Lamine. xamoon naan duñ fi. tey daan na ki nga xamante ne mooy deux siga. rëm champion la. rëm champion nañu. deux siga wuyu ko yàgg nga daan ay doomi jàmm. waaw deux siga da doon daan. lamba demee noonu mbër di courage xale nga dema liggéeyuwaat. tey dana am guddi gu yàgg tey. wallaay ndeysaan. guddi gi tey dana ni ñetti fan ci am na mbër yooyu am na mbër moom damaa dégg ci benn paa mu ne bi ñu ko daane ba muy ñibbi oto bi mu dugg da doon ñaan ak oto bi accidenté mu dee. man bi du ma ko wax. <laughs> la ilaha illallah defe dafa metti defet comme dëj Lamine. xas-xas loo Siteu xas-xas loo Papa Sow qualifié ngi noonu ñu xaar général dugg ci géew bi moomoo foo le 25 juillet ne ko rel marle bu ko fàttee fii la ci arène nationale ak yeneen combat yu fi war a am diggante mobile buur siin fii la arbitre bi la na grand combat bi général moo ñu won ginnaaw jóge écurie Ndakaaru Coly Faye moo gàtt moom ngeen jàkkaar ku ci nekk ci ndam nga jógee ki pambaay la mujjee daan ki mujjee daan daan di fal di nuyu ñuy suivre le tv point com yëpp Sambay quatrième édition drapeau Ndiagaña général mi ngi def ay déplacement Coly Faye ko général dóor xeex xeex nañ ñi ngi xeex général général nga koy dóor suuf général Coly Faye ah général Zé Coly général ngi dóor suuf général ngi dóor suuf général ngi dóor suuf laa ilaaha laa général nga koy dóor ci suuf Zé ngi dóor ci suuf général nga koy dóor ci suuf général nga dóor ay perkit Zé Zé ak Coly Faye laa amul round d'observation laa ilaaha illallaah ñaari wayu wayu entre guillemets waaye daal ay bandi géew lañ kon nu mën a xew général bu Fass Fass Ndakaaru général ndeysaan arbitre bi sifflé na Coly Faye taf ko général tem gauche tem droite ñu xeex roofoo ngeen gis ko général a ngi door ci suuf mu ngi door ci biir bi moom général laa ilaaha illallaah Zé ngi dóor ba léegi Zé jàppul Coly Faye jàppul ku ci nekk ci ay téere nga jàpp ku ci rek ci ay téere nga jàpp général a ngi dóor ba léegi rek Coly Faye dafa mel ni instant bi mënul pour dóor munu la dóor moom Coly Faye sol na ko Coly sol na ko tey général moom daal kuñ ko boole rek mu ne da xeex laa ilaha illallah roofoo nañu liiru jaan suñu xel dem na ci yow doomu ndeyu moo njaay doomu ndeyu Afia ak Ablaye Sarr nee ma supporteru moo kon yëpp nangu naa ko di nuyu Mansour Kassé bu xarañ loo borom borom borom Kolda ñaari mbëri roofoo nañu Abdou bu xarañ loo foo féete maam Balla Gaye tuuti yaay Sarr bu Balla Gaye omso garga arbitre atte na waaw foog mu atte ndeysaan nii la la koy doxale nii la la koy doxale ay kombaam nii la koy doxale arbi sif la waat na dafa mel ni dafa mel ni xeex bi buñ ko defee général lay gën a arrangé de général pied gauche Coly Faye pied droite Coly Faye nag ak lu mën a xew jàng na général eh door na ko coup bu dal door na ko góos dal général door na ko góos bu dal laa ilaha général Coly xeex bi metti na collègue général ku ne xam na ne Coly Faye songkat la mais pour mu song général du yomb Coly Faye général déplacement latéral moom général fii ci arène nationale yaakaaruma woon ni combat bi dana nii de ndeysaan ndeysaan Coly général ñamante na ñamante yu neex Coly Faye daa koo taf ndax bu ko ma mayee distance rek xeex bi mën naa meti ci moom Coly yaay taf tafal taf bee gën ci yow daw na jël tànk ba dij na ko ah ah ah laay la laa ndaay lalal ndax Coly daanu ko ndax Coly fay daanu ko ndax Coly Faye daanu ko ndax Coly Faye daanu ko woote waat arbitre leen dañuy bëre waat jaadu na jaadu na jaadu na jaadu na mais nag waaw jaadu na jaadu na waaw sauvé na combat bi jaadu na taq nañu rëpp ñoom ñaar suuf ah mais man li ma ci jaaxal général loxo bi rek moo tax suuf biñ joge loxo bi rek. gis nga mbaa duñ xeexaat foofu njortu naa xeex amaat foofu de bañ jege saako yee mu ngi koy woo ci géew bi mu ngi koy woo ci géew bi moom ko li fay mu ngi koy woo ci géew bi moom Coly Faye ñu ngi leewaatoo maama ni njortu naa mu jeexe avertissement de njortu naa ko déedéet kilifa yi général Babacar Diom Seri Teneng Babacar Seri Aram Ndiaye ak lu mën a xew daal gis nga ko mu ngi noonu Momo ñaari mbari Momo ba léegi waa gi mi ngeen ko téye général Coly Faye arbitre ko tas arbitre tas na ko lu xew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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk